ñooy dugg ci géew bi bu arbitre bi sifflé man moo def li may def dem suma yoon. gis nga ku a doon jàmbaar da ngay nangoo doon daan jàmbaar. xansen bi nekkul loo xam ne da ñëw fii di ko wax ak wala. wala man maa la koy wax ah. waaw ah, nañ bàyyi bu gi bu arbitre sifflé ba ñu simee ko arbitre xool ko am ko ëpp sañ-sañ. waaw. Ah. bis bi xam nga lu muy représenté ci man. ci lu muy représenté. ma waaxu ba ci benn bunt jàkkaarloog bunt bi ñu ne ma bunt bii nga war a ibbi pour dal ci ay milliards ci biir bunt bi. la ilaha du ma ko ibbi dama koy daaj. bu bi sifflé ma dox sa kaw jàpp la duma la daan. boo dawee yow di ma song pour ñu bëri dama lay bu mag nga génn ñu xeex 15 minutes yu wow bon même bu 15 minutes yi matul dimbali ma ñu xeex 10 minutes ba ñu xam mag yow bu gën a ñeme lu métti ba pare ñu jaxasoo man ak yow ñu bëri. di gërëm aussi ci côté staff bi nga xam ne mooy entourage ñi nga xam ne ay xaritu euh, Ibra Diouf lañ di ko jàppale. Mhm. Mor Sey Mële sonn na fi lañ ko fekk. loolu fi mhm. jiitu. Mhm. sonn ci di ko jàppale te nit loolu la amee nit. di jàppale sa doomu ndey vraiment mu am bés nga taxawu ko loolu aussi rafet la. di la wax ne kër gi daal kontaan nañ ci ci kaw ba ci suuf. di gërëm di ñaan la jour yi ci kàttanu yàlla dimanche le 12 ci arène nationale xale yii ñu la limal bu dee bëri rek nga bëgg ci kaw ba ci suuf. plateau bi ñu teg de ñemewumal ne diwa man. amul kenn koo xam ne ñeme naa la jox favori yàlla métti mu xam na ko. te vingt litres lañu donc loolu nag li muy indi. mooy boole bi ci neex boole say morom. te yombul ñu bari nekk ay naata nga nangoo bëree. tax alay léegi làmb ji li ko yàq mooy tonte bi bari na. moytul diw moytul diw waaw soo moytoo ñi nga xam ne jàpp ngeen yaa leen man boo leen jeexalee ndax ñi di nga bëri jéeg ñi la mënoon waaw mooy tax ba moytu ñi la yóbbu ci kaw waaw léegi bu ñu la tegalee ñaari defet wala ñetti defet ñu ni kon mën a woon kon la nga doon moytu <laughs> ay ñi nekk ay naata la ñuy bëree ñu ngi leen di gërëm di leen sant waaye sama xarit bi moom kenn moom Ibra Diouf le tout nouveau promoteur Mbewaan production maa ngi lay nuyu Ibra euh, jërëjëf Modou ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur mm-hmm. di nuyu nag waa Mbewaan production ñi ma teewal fii ndax Modou wax naa ne la Mbewaan dafa doon dëkk bu mag muy bewaan mbaa fay caacom guy si ndoorong nga xam ne dañ maa jiital doyloo ma ñu ubbi structure bi na ma yaay doxal euh, loolu nag xëy na buñ ko gisee euh, xam nañ ne maa ngi ci lam ndax làmb 2005 lañ njëkk a tëgg tout noir fee ca mbéyaan fere ci 2 millions 500 yaakaar naa 2005 ba 2022 nekkul ay caaxaan. depuis 97 ba léegi tam ñu ngi seetaan lam ñu ngi dem ci lam. fu nekk organisé nañ fi lutte simple. kon bu ñëwee ànd ak laat comme li Jibi Ndiaye wax barki dem rek laat li sama mbër yi amul ku ma ci xam numéroom yaakaar naa démb ak tey sax laa ci commencé dégg ak ñenn ñi leen xaw ma lu leen fay ainsi de mais dafa am confiance bu dox suñu diggante. Mhm. chaque jour dama koy wax nit soo ko xamee da koy wóolu soo ko wóoloo pare da koy yaakaar. muy ñëw représenter un digne fils de Khombole un serviteur social. euh, en la personne de Mamadou Lamine Gueye mm-hmm. cordinateur Benno Bokk Yaakaar bu Xombol mm-hmm. euh, di santaale Ibra Diouf mi nga xamante ni moom moo am initiative bu rafet bi porté ko ci kenn ci tund wi mu nekk muy Mamadou Lamine Gueye mu nekkul lu gratuit nag ndax nit moom li mu mérité rek lañ koy jox moo tax ñu bàyyi suñu lépp ñëw di ko représenté dignement di ñaan yàlla yeggale bis bi ci alhamdulilahi rabil alamin mm-hmm. di leen wax ni le douze incha allah yàlla ci la lañ ci yàlla yor bëgg jàmm incha allah rabbi parce que mbis la boo xam ne fonk nañ ko mm. mu ngi mel ni tey ku ñu tuddee woon doom ndeysaan xëy na jàpp nañ ko suñu mais le douze jàpp nañ ko comme luñ kuñ dañu jee tuddee doom jàpp nañ ko comme boobu parce que lu réeli ci ñun mm. ni ko wax ne bis bi kawe na ci ñun lool sax ndeysaan te xeebuñu ko tam mm-hmm. bu bis baa moom bu soobee yàlla waa Caaroy dinañ mobiliser wu dinañ ñëw. bu soobee yàlla. xanaa bu jaaykatu lëjum yi ñëwee ak jaaykatu ndawal yi ceeb jaaykatu ceeb yee des. bu soobee yàlla añ bi mat di nga di nga gis lu lu doy waar incha ñu teel a pare ñibbi. ñaar ñu ngeen gis ñaar ñi ñu jox micro bi kenn ki mooy ki nga xamante ni mooy Ambroise kenn ki mooy reeni guy. mosuma am combat ñi ma ñoo la li ma def. ci waaw baax na. barki alxuraani ma daan daanoo leen. ñi ma hmm. bëreel gis nag moo la nax mais bu jour ba dina am leneen lu ma gis lu may nax ci mbër. parce que man maa ngi jëflanteeg mbër bu nekk. ma gis lu may nax ci mbër. dama la jox cër dama la jox cër. te boobaa di nga xam ne jox naa la cër. te boobaa di nga xam ne carrément man lu ma liggéey. ñun ñëppay joxante cër. mais pour ñu wax amul ay joxante yooyu. bul nekkoon lu ma gis man amul lu may gis yow lu dul mbër laa gis yow. sama nawle nga. ku njëkk a dóor sa morom bu aaj bi sifle. en tout cas bu taxawee rek dina bëre dina xeex man ñaari yëpp laay def. waaw waaw de du yomb <laughs> du yomb euh, doom jaam gën. da nga da ngaa tardé sax ma yaa fi jiitu góose nuyool. li ma la wax mooy. waaw yaa say mbokk. waaw lépp loolu mën a waaj. waaj leen. incha allah rabi. Eh, jaam gën man sama bët dama. dinañ waaj bu baax a baax maa la gën a teg sa bët fu kawe. te man xam naa ne man ak yow bu ñu bëree. arène nationale Ilimane kii cof la de. xam xaw ma ko baaree neex ma ak yow incha de. lamb ji lamb ju rëy ngi nii. moo kii déggoo ma de moom dafa yàgg bëgg bëreeg man. barki yonent bi boo xam damaa war a bëreeg ñoom ñoom. te su ma waree bëreeg damay bëreeg kii ba pare daal ñu waxtaan ci combat bi mbokk yi dañuy dem ci combat bi ci topp mooy spécial bi avant le grand combat fils de Sadio moo koy bëri ak Sa Thiès. le 12 daal yaagul ma fi ma jugee. le le 12 yaagul. le 12 ginnaaw suba la. yaagul de. Eh, Sadio kii di wax ak di kii booy kii champion la dafa mën a bëri de. champion la daa mën a bëri mais champion. champion moo koy daan. kii maa ko gën a nekk champion fukki junni wax. kii Sadio ki la daan bu kii la daan laa wax ki la daan dama ko bëri ba mu loolu yéen ñaar yaa may dégg ki la daan laa wax de fii Sadio tapet nga. waaw baax na ba làmb ja. le billaay wallaay wala tey tapet nga. le yàggul nga taxaw dëggal sa bopp. waaw le douze yàggul. man ñi ma bëre ñoo la ëpp ñoo la sut ñoo mag fuuf. le douze yàggul te wàllu suuflee dañuy arrière. man maanaam man xamoo man ku ma xam xamewu ma si ay wax di ne fii di wax wax ju bëri. wax kan nga ndax boo nee boo nee dama laa laaj wax kan nga. non xam nga yow yaay wër di ma laaj mais man. teel na ko yow concerné woo ma jour bi ma jëlee laajal laaj du ma ko woo sax bàyyi wax si yow wala genre yooyu noonu sama yoon nekku si yow xamala laa si xëy yow le douze jot ku nekk wane li mu war a wane. man la incha allahu rabi. ca armée bu ak fourrière mbokk yi loolu c'est le grand combat nag ah grand yof la bi bàyyi ko. yow da ngaa sob dëgër boobu say mbokk dañ laa tere eh, combat bi ne la bu laal eh. bu laal doomu géwél bi nga laal ko. yow yow te laal nga laalaakee. yow man yow dama laa lijjantiwul sax. boo taxawee une minute une minute ma jaxase la dem sama yoon déggoo lu mu laa de. ma nekk ci yoon ay dëkk yaakaar ma yow da ngay boo taxee ma jaxasale dem sama yoon. da ngay déglu bu maax de. maa la mun maa la ko ba may xale bu ndaw soxlawu ma sax yéen ngeen may témoigner waa Grand doy nañ ma témoin ba may xale bu ndaw laa të. di di di dugg si gétt gi maanaam gétt gi maanaam ñu fa ñu fa gën a të may bëri ñoom ñu may booleek ñoom may bëri. man damaa të ba ñu yóbbu ma daara damaa të ba ñu yóbbu ma dara. te damaa ci bëre de su ma la tàncee naa tegal lu métti. tëwoo ci bëre yow da ngaa mun sax bëre yow maa dàq bëre xeex. tee ko baax su la neexee ma may tànk nga jàpp mu dëgër ma maa dàq xeex maa dàq bëre. am na ni toog yi ngay expliquer nii rek neex na. Mm. lamb ja incha allah jour si xam nañ ne ñi ñu fi toog ñëpp xam nañ ne lu fa neex yëpp maa koy. billaahi trois secondes laa la may trois secondes boo ñëwul maa sa kaw. yow ñun xam ne déggoo lu wàcce la ñun xam nañ lu nga yaakaar si làmb ji. te bu boobaa laa lay war di lu. yooyu jël ko dërëm man taalibe laa damay jàpp di julli di ñaan suñu borom yooyu moo la tiital. sama xarit bi yaa wóor. maa ngi nii de looy tàggoo. <laughs> Eh, jërëjëf Modou. xanaa di santaat yàlla rek. di gërëmaat assistance bi fi yëpp. Hmm. wax dëgg yàlla ci kàddu yu am solo yi nga xam ne jubal nañ ko fi. muy kàddu yoo xam ne yàlla rëccuwuñu li ñu doon dajalee mbëri rëccuwuñu itam ñi ñu doon tudde drapeau li tax ñu tudd leen drapeau. ndax mën nga leen woo ñu ne dañoo jàpp. dëgg la xam na ne mardi ak lënd ñoo yem. Mm-hmm. ku xëy da ngay jublu si bërëbu liggéeykaay. Mm-hmm. ndax samedi ca ngoon nga fay génne. Mm-hmm. di remercier waat bu baax Abdoulaye Ndiaye. comme ni mu la ko waxee rek. ndax ñun dañoo doon ay nit yoo xam ne ci kër yu mag lañ yaroo. Euh, ñu jàngal nu ba pare. ni ñuy nekkee nit ak ni ñuy àndeek nit. yàlla dogal na nag ñun biñ ñuy jàngal dañ noo jàngal ba. jàngal ñu ni ngay def ba ànd ak nit. Mm-hmm. te bu la tooñee doo fayu. te mm-hmm. du ko xam ci sa xar kanam. Mm-hmm. bu ñu jàngal dañ ñoo jàngal ba jàngal ñu loolu. kon ñu ngi koy nuyu bu baax di ko siyaare di siyaare Eliman président Gora moom mënu ma wax ci moom ndax maak moom samedi dimanche la. Euh, ba ñu xamante ba léegi yaakaar naa ay at la lu ne dox na suñu diggante. mu rafet lool. <coughs> Euh, dina nuyu monsieur le maire di nuyu bu baax mbuub mi nga xam ne moo ko fi teewal. ndax kere bi nga xamee ne jël naa sama licence. dama ne bala maa tëggal kenn grand combat damay tëggal monsieur le maire ba pare. ndax socialam ak njàmbaaram ak jàppale gu muy jàppale ay mbokkam. xam nga jàmbaar mun nga ko doon. te du tas ci say mbokk. mais wolof dafay xam ne mbay ci soow tànk. dëgg la. walbatiku ne nañ ko def joo dégg nañ ko waxtaanee ko waxtaanee ko jut waa yàlla na ko yàlla sàmm yàlla defal ko jàmm kontaan nañ ci mbër yi fi ñëw yëpp ci seen disponibilité. ak yar. ñoom ñëpp a dal ay na xale lañ ay nante lañ ay borom baax lañ yàlla na yàlla sàmm lañ kon kontaan nañu ci parrain yi adulaat amuñu sa fay 2STV Bantamba TV respect à per percun bëgg nañ mu yëkkati kàddu mais moom nante la waaw moom comprendre na comprendre na ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax di koy ñaanal di ko ñaanal yow Seras ñooy ànd maa lay jël si ñu dem di remercier la police nationale Momadou kontaan nañ ci yéen yal na yàlla fay leen respect à vous tous ñu ngi leen di remercier merci mbokk ba beneen yoon. a ah, c'est le Bantamba c'est le meilleur. Karbala Karbala doomu waalo ñoom ñaar attention Karbala sànni na ñaari droite attention ñoom ñaar sa Karbala sànniwaat na jàkkaarloo na ak ñun doomu waalo këf na tànku Karbala tax na ko ñoom ñaar fan lañ mujj Karbala tuur moog doomu waalo doomu waalo tax na ko ñoom ñaar ci biti. ku ci nekk sa benn tànk ngi ci biti doomu waalo Karbala mi ngi woon ci biti dugaat na. laay léeg la laa combat la ñaari xale yi fi ñu toll ci làmb ñoom ñaar kenn ku ci daan sa morom ah daan nga mbër mu mag ci sa génération. Ndeysaan combat bu neex Karbala doomu waalo am na lu mu bëgg Karbala daan na combat wax lii Karbalaay dem. laay léeg la laa mi ngi nii. ndeysaan doomu Pikine bi daan na waay Karbala waay o oh, daan na doomu waalo ndeysaan champion daanu na ndaanaan daanu na xoola ñeeni ñibbi maam Seex ñeeni ñibbi ñëpp waa kër doomu waalo lañ ndaanaan daanu na barki maam ja maam Seera Fall ndaanaan na mu mag daanu na tey doomu waalo Modou na maa ngi lay siyaar waaw fii la mais Karbala daan doomu waalo jël bu rëy de boo xam ni ñoom ñaar werante bari woon na ci lool mais man ne ñoom ñaar combat boo xam ni ku ci gañe rek day wax ne mérito na ko parce que booy seet soriantoo wuñu ci palmarès soriantoo wuñu ci wàllu kàttan même seeni supporters sax booy xool dañoo xaw a tolloo moo tax combat woon boo xamante ni ku gën a gaaw rek waroon nga ko mën a gagné moo tax nii mu demee rek la ñëpp di kontaan. yaa taxawal ni Jacob Baldé ak boo Boy Djiné doo yow yow eh, ku lay xalaatal. non pareeguñu nag. waaw mais santrek rek Modou Mbaye man dama yàgg ci làmb ji dama ci yàgg trop trop man tax naa jeunes yu bari bëgg a tëgg làmb. yu rëy yu rëy. mais surtout Jacob Balde. ak Papa Boy mooy Papa Boy Djiné ci yoon. événement la ko war def. et eh, yow loolu bu ko deful événement man def naa ko événement. Ah, loolu moom bu événement moom yaa ma ci doy. waxamu dénk mu. wuyul événement Modou ma ci jox ko làmb ji. amul leneen jeex na. salaamaaleykum. papa maa ngi siyaar. ñu ngi lay bëggee. yaa ngi am dafa am loo xamante ne nii Bamba fay daf koo waxoon ci keroog bi nga xamante ne ni Jibi Ndiaye da koo tuddee drapeau bi ñu toog ci signature de contrat ba di waxtaan Bamba fay ne ma Jibi Ndiaye ma defal mënu ma koo fay waaye teraanga teraanga moo koy fay Bamba fay ne woon tabaski gii di ñëw mooy jox Jibi Ndiaye xar ne woon yére bi Jibi Ndiaye di sol moom moo koy jox Bamba Faye mu ne woon yére bi Jibi Njaay di sol tabaski moo koy jox moo ko koy ñawal moo koy jox xaru tabaski te dina ko jàppale ci bis bi ñeenti enveloppe yooyu yëpp mi ngi ni sama loxo. Ndoy Fida euh, parrain baa ngi noonu borom bis bi dafa buuju moo nekk noonu doomu ndoy Balla Gaye numéro 2 moom lañ tuddee bis bi moom lañ tuddee bis bi mooy parrain bu mag bi waaw cum waaw waaw ndeysaan attention Ndoye Vitamine ak Vito seen combat métti na seen combat nag métti na attention attention ñoom ñaar xeex nañu attention mu daanu wala lan attention risque dóor mu daanu dina ci am lay la xëy la laa Vito fu ñu mujjee bi mu ne arbitre bi mu ne arbitre bi mu ne arbitre bi mu ne Vito daan na Ndoye Vitamine songu na ko nag Vito songu na entamé na action bi Vito Vito rayante ji na rayante ji na pour lamb ji jeex waaw waaw bu yàgg la ko waroon def waaw. moo demee ni sant yàlla rek. loolu Jibi Ndiaye seppale ñëpp ñëpp na yow la. waaw Jibi sama xarit la Baye njaay moo tax lamb ji am na. waaw Baye Ndiaye moo ma dugal li mu sepp ñëpp na yow rek la. waaw sama xarit la euh, li mu gis ci man xaw ma ko man tamit am na lu ma gis ci moom. mais da ngaa baax rek. non kenn la yow. dañu la bis bi yàlla amiin amiin.

ndeysaan Ameth Ameth ak Mbengue Mboro at bi sifleegu sax waaye ñu ngay lewtoo ñaari mbëru ñamante lañu combat bi na ko gars yi bàyyi xel at bi baa ngi leen laaj ndax pare nañ at bi sifle na ndeysaan mbokk ak ki nga xamante ni mooy Mbengue Mboro ndeysaan Mbengue Mboro plaqué na ko ak Ameth Lac Rose ñaari mbëru ñemente Ameth Lac moo ne wan ginnaaw cël na ko bëgg ko jël da koy jël daan da koo daan ko mbëru ginnaaw raay bi daan na mbëru bàcc seeraas daan na Aliou wa ko indi ndeysaan waa ginnaaw raay am nañu ndam oho Mbengue moo ne daan na ko jël bu rëy da daan ko da koo jàpp ko daan ko. ndeysaan ndeysaan jëlal loolu Mohamed xoolal fi ma bi mais lii lan la booy tamit liñ taal bari na de Cheikh Papa Ndiaye lii bari na. non waar ba mu juddoo ba tey musuma gis lii lampi si stade Iba Mar Diop bi tey lii doy waar wante du mën a guddee de ndeketewul bi bàcc seeraat di bëre ak Balla Gaye de nii la stade bi mel. mu dem yaayam ñaanal ko mais dafa ñëw Ndakaaru nag nekk fi nekk nu rafet ndax ñim fi liggéeyoon doon ñëpp xoolal jigéen ñee mu doon ñu baax ñoo xam ne réew mi da leen a dégg ñu tudd leen drapeau ñëw tey civilisé affaire yi jaxasoo na de lamb jaxasoo na de laa ilaaha illallaah tey lamb mais fii du géew bi ci lamb caatu Daawuda Fall yal na ko yàlla may ndam moom laa faral géej yooyu laa dégg bi muy bi muy jógee arène nationale bi muy jógee arène nationale ci la jógee ndeysaan Youssou Ndour ak Caatu Daouda Fall Caatu Daouda Fall mi ngi dox ci koom day xeex ak moom Youssou Ndour jël na ko Youssou Ndour jël na ko Caatu Daouda Fall rasu na ba jeex Caatu Daouda Fall Youssou Ndour Youssou Ndour jàpp na ko Caatu Daouda Fall Youssou Ndour caatu moytul uppercut bi moytul uppercut bi moytu ko buy rocc ndoxo nday joor bi muy ñëw ndeysaan Thiatou Daouda Fall ak Youssou Ndour bu lebu gi ndengeñ bi moo ko téye xoolal fii mu ndengeñ moo baax waaw ndengeñ bi baax na ci waaw mais loxo loxo loxo loxo droitu Youssou Ndour ah. saa bu génnee Thiatou mën naa bu doy waar waaw moo tax mu téye si téere yi moo tax mbër boo koy ngeem da ngay xool li nga koy taxal lan la tey xoolal téere yi ni mu géré am daamale Youssou Ndour xoolal téere yi ni mu ko géré doon élastique la bu xëy xëcc da koy mooy koy takkal mbër da ngay xam li nga koy takkal mooy lan daaw daaw dafa li mu def sànq du yoon de dégagé coup di dóor loolu du yoon. mën na ko ram. waaw mën na koo mbaar mu ñàkk. waaw waaw fi booy bi dugal baax na de. laay laay Thiatou Daouda Fall Thiatou Daouda Fall laay da koy wër Youssou Ndour Thiatou Daouda Fall laay laay la waay Thiatou Daouda Fall waay la mu dam yi waay waay xoolal booy bi la mu dam yi ak la mu daan xoolal la mu dam yi ak la mu daan. waaye ne na xoolal booy bi la mu dam yi barki yonent bi man damaa gëj a gis li poxotaan ca poxotaan ba la jaar alaaji baay bala mbubb mu baax parce que <laughs> dem sama yaay ñaanal nee na dina baax te barki alxuraan dafa baax di sant sama yaay bu baax di ñaanal sama papa wér di leen sant yéen ñëpp waa presse bi jàppale ngeen ñu taxaw ngeen ñu gis nañ jéego yi ngeen ciy def heure nag mënul ñun ñëpp ay juum mais ñu ngi jégalu ñëpp ku ñu tooñ rek wala ku ñu wax lu dul noonu rek ñoo ngi lay jégalu bu baax te di baal ñëpp ak di ñaanal ñëpp jàmm. jërëjëf mbokk yi seetaan la 2STV Xaadim Anta Seck merci mën ngaa dem toog kontaan nañ si yow. mbokk yi nii seetaan ñu ngi leen di bëggee bu baax baax di leen kontaane am nañu mbégte ak kontaante di jàkkaarloo ak yéen ci la 2STV gis ngeen loolu jàll muy bantamba mbokk yi émission bi gis ngeen li nga xamante ne ni moom moo ci am seetaan nañu jàkkaarloo ki nga xamante ne mooy Fourrière ak armée bu ngëwél mu war a doon combat bu war am le 12 incha allah doon combat boo xam Mbewaan production moo ko woote mu ne combat bu am solo seetaan ngeen li nga xamante ne ni moom moo amoon arène nationale dimanche passé doxoon ci diggante xeeru ngor ak ki nga xamante mooy pôle bu daaru xeeru ngor am ndam ci kawam seetaan ngeen caatu daaw la faal macha allah lu rëy li nga xamante ne def na ko ci digganteem ak Youssou Ndour félicitation champion ndaanaan nga am nga yoonu làmb góor góorgóorlul gëmal entrainement yi respecté gars yi rek dangay yokk dem ci kaw félicitation Youssou nduur daan nga fi bu yàggul ay champion yoo xamante ne nii ci làmb daan leen yombul te daan nga leen macha allah ñu ngi lay félicité bu baax a baax a baax a baax di félicité promoteur yi tëgg yëpp Jibi Ndiaye ñu ngi koy félicité bu baax a baax arène nationale neexoon na mais aussi ñu ngi félicité Momo production moom pour une première fois mu tëgg làmb làmb ji ngeen gis ni mu mel mu nekk làmb joo xam dañ ko reporté mu doon ci jour férié c'était pas évident stade bi mel nii mu mel waaye gis ngeen ni nga xamante ne noonu la amateurs yi loolu yëpp day wane ni ay combinaison yu am solo boo ko tëggee amateurs yi ñëw wuy si la ñu ngi koy félicité bu baax a baax Modou Baye Fall mbokk yi nag li waral jotaay bi yaakaar naa ni ci wàccaayu le 19 la le 19 juin doon bés boo xamante ni nii làmb dootu ko fàtte ndax wax nañ leen bés la boo xamante ni ñaari xale yi ciy bëre kenn ci ñoom ñaar ñëpp wala ñoom ñaar ñëpp dañoo soxlaa dem waaye le 19 kenn ci ñoom ñaar day dem bàyyi fi kenn ki ñu toll ci niveau boo xamante ni ci làmb il faut ñoom ñaar kenn dem bàyyi kenn jàmbaaru jàmbaar ak euh, production doon structure boo xamante ne am nañ vision am nañ vision bu baax a baax ndax am vision moo waral ñu xool ñaari xale yi nga xamante ni ñu ngi ci niveau boobu ñu tëgg leen mu doon combat bu war a am incha allah le 19 ci arène nationale mbokk yi ngeen ñuy suivre en direct ci la 2STV yi ngeen gis plateau bi ni nga xamante ne ni noonu la demee ñu dend ak ki nga xam mooy la promoteur Mansour Ba doon un jeune opérateur économique doon un jeune boo xamante ne nii fii la juddoo ci ndakaaru fii la yaroo ci ndakaaru def lépp loo xamante ne ni doomu ndakaaru gonek ndakaaru da koy def mu def ko muy xale boo xamante ne nii ginnaaw bi ko yàlla jàppalee xewalam da koo jël ne dama koy delloo ci sama ndaw réew muy Mansour Ba muy xale boo xamante ne nii ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax mbokk yi ngeen gis Franc ak Sokh ñoom ñaar ñëpp ñu ngi ci plateau bi toog bisu la 19 doon bis boo xamante ne nii yaatu na waaye balaa maa jox kenn mu nuyoo dafa am ñoo xamante ne nii bu mbir neexee ñoom la Mariasine may sa bige may sa bige Mar bégal léegi jërëjëf macha allah mbokk yi gis ngeen loolu la leen 2STV yi nuyoo tey ci bisu mardi bi Bantamba spécial jàkkaarloo Sokh ak Franc Mansour Ba le frère maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Modou Mbaye di nuyu waa Sénégal di nuyu Franc mi toog sama càmmoñ. Mhm. di nuyu le champion Sokh. bu mhm. écrit xam sa cosaan. Mhm. di nuyu assistance bi yëpp. di nuyu le président du CNG. di teg luyo bi si suñu papa Thiam. Mhm. di nuyu le commandant Thioune. Mhm. di nuyu mbër yi fi toog yëpp di leen sant di leen di leen ñaanal maa ngi nuy aussi diaspora bi. Mhm. di nuyu tous les téléspectateurs téléspectateurs de la 2STV. macha allah merci ñu ngi lay bëggee bu baax a baax yaa ngi soog a ñëw 2STV. bon ñëwoon naa fii boobu xaw na yàgg tuuti nag quoi. ok ok macha allah gis nga kër gi ni mel. waaw ah, macha allah kontaan nga suñu kontaan naa ci bu baax maa ngi lay bëggee bu baax a baax a baax a baax kontaan nañ ci yow mbokk yi toute la famille de la lutte ñu ngi fi CNG teew nañ fi les promoteurs son là les amateurs sont là les lutteurs son laa tey dañuy làmb Fra Sokh maa ngi lay nuyu jaajëf Modou ñu ngi lay fayan ah. di wax onze bila bisimila ina wàlli yàlla jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul maa ngi nuyu suma yaay di ko santaat bu baax a baax a baax a baax a baax yaay maa ngi lay ñaanal gudd fan ak wér gu yaram bu baax a baax a baax a baax a baax a baax yal na yàlla guddal sa fan ci barki yonent bi di ñaanal suma papa fi mu tëdd suuf sedd ci kawam di ko ñaanal suma papa mu laay seen di ko ñaanal suma papa Bure juuf di ko ñaanal suma yaay Ndeela juuf di ko ñaanal suma papa du ture di ko ñaanal suma yaay Fat ndooy di ko ñaanal Zilbalde Junior di ko ñaanal papa Yadd di ko ñaanal Moussa Dioum suñu grand frère di ko ñaanal mondu làmb képp ku dëddu maa ngi lay ñaanal yàlla na lay yàlla yërëm te jéggal la te jéggal say bàkkaar ci barke yonent bi di nuyu suma nijaay Jibi Joola mhm. di ko santaat bu baax di gërëm waa écrit xam sa cosaan bu baax a baax a baax di ko dalee suñu papa Malick Ñing suma entraîneur moo sonn na si ñun trop ak ñoom lëppi ñoom alaaji sey waa écurie bi yëpp waa xam sa cosaan yëpp maa ngi leen di bégee bu baax di ñaanal waa pikin fi ma dëkk di ñaanal waa ginnaaw raay fi ma juddoo yaroo fa màggee fa di ñaanal axlu làmb ñëpp am jàmm di nuyu suñu papa Thiam ak suñu papa Thioune ñi nga xam ne tey làmb bu rafetee am nañ ci part de responsabilité bu rëy mm. di nuyu ñoom grand góorandooy xam nga ñoom Fadam di nuyu ñëpp ñoom du Baye Fall ñëpp képp ku nekk ci plateau maa ngi lay nuyu di nuyu suma adversaire Franc di ko ñaanal jàmm ba le 19 juin suñu borom may ma ndam ci kawam di ñaanal promoteur bi suñu borom defal ko jàmm ndax it mënoon nañoo choisir beneen mbër mais seen choix Sokh la ak Franc hmm. di leen ñaanal lépp luñ séentu ba tëgg Sokh ak Franc yàlla buñ ko rëccu ci barki yonent bi di ñaanal waa kër Pape Seck ñii moom ñun ak ñoom c'est la famille di la ñaanal yow Modou mbay di jox suma adversaire wuyul jox na la waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu assistance bi tew fii yëpp aussi di ko nuyu moom xam nga di nuyu promoteur bi maa ngi nuyu ñëpp daal di nuyu aussi tamit ñi nga xam ñëw ñuy suivre xam nga di nuyu waa diaspora bi di nuyu waa parcelle bi ma jógee parcelle ëmb 26 mm-hmm. di nuyu monde làmb di nuyu ñëpp mm-hmm. comprendre nga di xaar ba bés bi daal ñëw mm-hmm. moo ñu fi indi mais mhm. politique bi dafa xaw a bëri quoi. Mhm. politique bi wax ci bës bi moo gën. <laughs> politique ban. politique bi muy politique dafa xaw a bëri quoi. kan soox. si ah. Mhm. la yowee soox. Modou Mbaye man nga naan Modou ngay waxal de. loo yowee soox. man ngay waxal de. waxal. ma ne man ngay waxal laa. walaay mooy yow laay laaj. dama fekk keneen dafay toog. waxal loo yowee soox lan la. su doo ko laaj lu ma yowee moom. soox wul. loo ko yebee mbokk yi ci bisu le 19 Tapha Leer dina ci bëgg sëgg ak ki nga xamante ne mooy Sa Thiès Gala Ardo Junior dina ci sëgg ak Daabu Ndaw Caatu Senzala dina ci sëgg ak Sàqal de Ñang Baalo moom ak Guy Guy Mako Ibo moom ak Mam Balla Caatu Puyol moom ak Ibu Afia boobu mooy sama combat Caatu Puyol ak Ibu Afia muy combat boo xamante ni nii combat bu am solo la dama bëgg ngeen joxal ma micro bi moor bu parcelle parce que moor bu parcelle jàmbaar production moom def ci am rôle boo xamante ne nii bu am solo la lépp loo xamante ne nii moom moo jëm ci taxawal ay combat ak lu jëm ci wàllu làmb moor bu parcelle mi ngi ci liggéey liggéey boo am solo maa ngi lay nuyu di dalal bu baax baax ci la 2STV. waaw Modou mbay ñu ngi lay nuyu waa di nuyu assistance bi fi teew yëpp waa di nuyu sunu papa Thiam ak père Thioune waa di nuyu ñaari champion yi di Sokh ak Franc waaw di nuyu Mansour Ba ak tout le staff de jàmbaar Production waaw di nuyu tamit suñu frère waaw di nuyu le président Goro Ndoye président amateur yi waaw di nuyu ñëpp màggal ñëpp waaw di hmm. rafetlu jotaay bi daal ba si kanam ñu gën a yaatal si programme déedéet yow fii la ñuy yaatalee léegi maa yaw taxawal ko mbaa bu mel nii yomb na waaw Modou mbay mën na ne Sokh Franc hmm. demande nationale la en fait euh, du ñun ñoo jiitu si affiche bi affiche boo xam ne dafa intéressé woon promoteur yëpp. Mhm. d'ailleurs ku si nekk da ngay jéem rek ba sa mën-mën fu mu yem. amaana suñu borom nag da ko jagleel jàmbaar production. ñu def mhm. si ay jéego. Mhm. décorosé ko ñaari mbëri nag am nun communiqué jamono ji soo gisee riir bi am si dëkk bi da ngay foog ne Modou Lo Ama Baldé bëre. te tamit ñoom seen dayoo toll na foofu ñii ëllëg ñoo war a téewi làmb ji moo tax affiche bi rëccuwun luñ ko tëggee ñaari mbëri tamit dañ leen siy sant bu baax si seen communication parce que làmb loolu la laaj. waaw di wax jour yi nag ñaari mbëri nañ gën a góorgóorlu si côté mobilisation feesal stade bi parce que tamit pour fekk ji Modou Lo Balla Gaye ñoom Ama Baldé faw tamit nga am loo xaw loo xaw a wane si côté mobilisation dañ leen si ñaaxaar rek gaa ku xam soq xam ne su jógee pikin da koy topp ku xam Franc tamit xam ne su jógee Parcelles da koy topp di ñaari mbëru gox kii yaakaar la biir Pikine kii nekk yaakaar biir Parcelles ça veut dire ne bu am solo la si amateur yi daal moo am yeneen combinaison yu ma ci gis ndax dégg naa ci baab gis naa ci baaba jaxal bébé bismi gis naa ci réparé anaconda gis naa ci ibu afia caatu puyol xale yooyu noo def ba génnee leen waaw Modou mbay comme euh, ça veut dire ne luñ luñ tëgg galaa la mën nañ ne ay grand combat la leen tëgg tamit mettre les moyens en fait dañ siy remercier Mansour Ba euh, di nit ku baax nit koo xam ne dafa jël confiance bi yëpp jox na ko day jékki-jékki rek ma ne ko lii taxaw na mu yëkkati xaalis ay millions teg ko sama loxo dañ koy remercier bu baax si confiance bi mu nu jox quoi waaw di remercier tamit staff yëpp ñoom ñëpp ñu ngi siy jàpp soo xoolee dañu indi baaba jaxal boo bébé bis mi loolu rek suñ ko yóbboon Ibamar dañuy tëj maar munoon nañ yem si affiche boobu dem jëli ji euh, caatu piol bi bu Afia combat boo xam ne du ñun tamit comme li ñu dal si soq franc dañu dal si affiche bi du ñun pro ñun rek ñoo ko soxloon amoon na yeneen promoteurs yi su nekkoon. doon jéem amaana tamit suñu borom ñun la ko jagleel. macha allah jeex jàmm ji ñu jëli ji ko. Mm. boole koog Aliou Fat Fat. Mm. waaw bëli jëli ji bu Kër Mbay Fall. boole koog Maam Balla Zior non Mor doo fi toog di limaat man maa leen di lim. bu fi limaat kenn. waaw Modou Mbaye yow loo def moo gën loo deful. <laughs> doxalal ba si kanam. <laughs> moom sama mag la sama xarit la. maa ngi lay yow borom baax nga na jéego yi nga def si affaire nag. ñu ngi lay remercier bu baax waaw jàmbaar nga dara ñoo far kontaan nañ ci yow bu baax a baax a baax man fi may fi may njëkk a Ba mooy fii dafa wax ni le fait nga porter ngeen porter seen choix ci ñoom mais yow da nga am parti boo xam ne da nga nekkee jàmbaar su ma nee da nga nekkee jàmbaar sa structure yaa ngi ko tuddee jàmbaar production te jàmbaar wrestling académie dafa am est-ce que ci futuru làmb wala ak est-ce que fi ñu toll du am jafe-jafe ngeen jël mbëru jàmbaar bëgg koo booleek beneen mbër su bon Modou man loolu dinaa ci a tontu. Mhm. parce que aussi yéen sax reporter des fois ñoom fu ñu leen waaw. làmb mooy doxee noonu doxee coow. Mhm. làmb bien vrai que suñu première affice la. Mhm. mais yàgg nañ ci trop dañu doon fopp du ñu yóbbu làmb. Mhm. di ñu yóbbu ci làmb yu baree baree bare. donc am na loo xamante ni tey làmb liggéey la. liggéey la ñun xam nga nit bu demee bay xalaat ni par exemple nit mën na fexe nga daanu. loolu dama gis ni sa gëm yàlla dafa xaw a des. parce que pour man ndam nekkul ci loxoy nit. man du ma tëgg ay nit sooq du ma gën a gore. ma boole kook di fexe na ko Franc daane loolu xalaatuma ko ci àdduna parce que si avant tout on est des croyants lu ñu mën mooy ñu organiser indi sécurité bu doy ñoom ñaar ñu bëri entraîner que le meilleur gagne loolu lañ ci am te loolu la ñuy def incha allah. masur Mansour Ba opté opté làmb pourquoi làmb parce que bi nga amee moyen mënoon nga dugg ci leneen mënoon nga liggéey ci leneen mais nga choisir ñëw ci biir làmb pourquoi nga def choix bi ci làmb. xam nga làmb passion la ci ñun. làmb passion la ci ñun dañ doon dem géej gi ànd a gars yi di bëre aussi ñu nekk ci keppaaru ay. mbër su ma la déggee ci làmb nga juddu. waaw yàgg nañ ci trop. yàgg nga ci waaw ok. Mhm. donc làmb passion la ci ñun ñu gis ni aussi au niveau fu ñu dëkk suñu commune y' a beaucoup de lutteurs yi nga xamante ni tey ils peinent avoir des combats. Mhm. léegi loolu day tax tey da lay pousser nga xool ban moyen nga mën utiliser tey pour ñoom fexe ñoom ñu bëre. contribuer à l'employabilité des jeunes. Mhm. loolu dafa am solo. Mhm. aussi nga xam ne tey boo nekkee jeune nekk ci commune lépp lu la war nekk ci réew sax laa war a wax. lépp lu la war tey mooy nga fexe tey say moroom walla say rakk walla say mag aussi nu mu demee nu ñu fexee ba ñoom ñu liggéey te làmb liggéey la làmb mooy suñu sport national fexe Franc ak Sokh bëre ñeneen ak ñeneen bëre je pense que on apporte notre pierre à l'édifice loolu kese la. Jàmbaar production moo tëgg Sokh Franc moo tëgg Papa Sow ak Siteu eh, man nag dama xaw a sopp dem naa ba gëstu ji ba xaw a xam cachet yi ñu fay mbër yi somme yu toll noonu nga koy génne di ko def ci làmb lan moo ko lan xaalis la bu tegee bu ñuy tibb joxe wala dafa am ay moyens yoo xamante ni ci nga jaar ba loolu noonu taxaw. non Modou Mbaye loolu lépp sant yàlla la xam nga tamit xaalis bu tegee moom amul fenn. Mhm. nit ñi dañuy liggéey di ñafe di daan seen doole lu ñu am as néew ñu bokkook doomu aadama yi defe naa loolu kese la. quoi mais cachet yombul. amee benn cachet yombul. donc juste que làmb la ñu fexe tey fay mbëri loo xamante ni gis nañu see raisonnable par rapport ak ñoom seen standing parce que ku nekk standing bu mu toll. Sokh mérité na tous les privilèges wax dëgg yàlla Franc pareil Papa Sow pareil aussi euh, Siteu euh, aussi même chose. donc tey am na koo xamante ni sa standing fu mu toll cachet boobu ngay bëre di ci ñaan yàlla rek am ci réussite incha allah. di ci ñaan yàlla am ci réussite te di ngeen ci am réussite bu neexee yàlla sox ak franc soq dama laa posé question léegi ci franc nga noppi mel ni lan la. non du dara damaa xam ne kii dafa mel ni bis bi muy bëre da koo jomb parce que nag c'est très normal musul bëre combat bu amee coow nii hmm. moo tax xam nga rek muy bu nit waxee sax moom day yàqamtee téesante xëy na nag comprendre naa ko nag ndax nit boo bëree sa carrière yëpp te musoo bëre combat bu dayo bi tool nii mosoo bëre combat boo xam ne àdduna yëpp koy waxtaanee xëy na mun na comporté woon ni muy comporté woon ni kii amul éducation te gis nga bu la 19 kii si lay jaaree ku mu gis jox ko cër. combat bi mu ne dayo bi dalaa laa dépassé. non man dayo mënu ma dépassé ci làmb Modou Mbaye fi ma bëgg a dem ci làmb fi ma teg sama bët ci làmb dayo mënu ma bu léegi mu ngi mel ni sama premier combat Modou Mbaye man kenn xamee ma wax ju bari moom lañ xamee wax ju bari man xam lañ ma xamee jëf Modou Mbaye man du ma nekk di tëgg rajo yi xam lu ma xam jëf muy leer ñëpp di gis te aussi tamit dafa am loo xam ne dama ko xaw a plané. tuuti maa ngi jégalu di jaale waa Unité 7. Mm. suñu grand bu fa wàññeeku muy Moussa Dioum. Mm. ak suñu coach bi yoroon ay bi muy mm. coach ATAP. ak Basir Cissé. moom tamit dafa wàññeeku waaye Inter dañoo ñàkk seen doom même pas un mois. Mm. mu métti trop. Mm. may wax ñëpp ñu ñaanal leen. Mm. ak ñëpp ñu fi jugee. ñu ñaanal leen bu baax a baax. di ñaanal suma papa wér ko ñaanal suma yaay bu baax a baax. di nuyu encore suma dëkkandoo yëpp ak sumay mboq njaago sumay mboq séeréer Modou Mbaye. Mm-hmm. combat bi da laa dépassé. man combat mu ma dépassé Modou Mbaye koo xam ne ba muy am ba muy am ay 18 ans ay 17 ans lay génn jël saaga moom dong di di dem uti di dem ñafante maa ma làmb dafa ma dépassé man làmb mënu moom moo yor làmminam di wax wax ju bari te lu muy bañ dégg nag dina ko déggaat fii tey. lan la. 30 secondes laa ko may su ñëwul 30 secondes ma fekk daan ko bind leen. sox journaliste bu fi nee na noté. mos ngaa bëreeg mbër mu la tant de secondes laa la may. maa la ko wax. pourtant moom. li mu wax léegi léegi yaa ngi li ma wax léegi léegi ba ni politique bi daa bari ci làmb pour pourtant man loolu laa wax mu ne politique bi dafa bari ci làmb dama jaale ñi dëddu nuyu ñi fi toog ñu laaj ko moom mu ne politique bi dafa bari. wax lu ko neex ba mu neex ko revenir at ci loolu. Modou Mbaye gis gaynde déglu ma fii bu baax ma. ñëwal gis nga nit. waaw lu bis rëy rëy rëy rëy rëy doomu aadama ma warulaa dépassé àndal ak dal gis nga yi ngay def nii yëpp fregé wu ma centimètre <laughs> dalal. non bi fregé na xam nga tax bis bi da ko xaw sonal. Hmm. bu toogee ba foofu naan ay ay kii diw lay waxal ak di ma yóbbu jéem a jaxaseeg waa. man gox boobu mu dëkk man am naa fa ay nit am naa fa ay nawle samay mbokk ñu ngi dëkk foofu bu ñu jëlee naan ay man dama leen di jaxase seen biir rek man ñaanuma yàlla jaxase leen seen biir ànd boobu ñuy ànd yàlla na ko yàlla yàlla na si yàlla def ndox bu sedd mais man ci cadre làmb laay wax ak moom Modou mbay man sportif la avant tout après làmb soo a ñëw te man dama liggéey dama voyage woon dem préparer suma combat ñëw la 19 dama koy wan. man foofu laay wax ak moom ba léegi génnuma foofu non may ma ñëw xaar may may ma ñëw rek mm. ba léegi génnuma foofu bu ma jéem a jaxas ak nit yi di leen jéem a maag yow la boo déggee ma ne da ngay li ngay def la di woo ay ma sàmba wala ma demb yooyu noonu <laughs> da ngay yem fi nga dëkk man fi ma dëkk laa yem maag yow la 19 ñooy dugg ci géew bi gis nga yow loolu liggéeyul doo ko fekk gis nga yow esprit tapet nga yor parce que xam nga lu tax nga yor esprit tapet gis nga góor moomul nit wax rek nga ni bërit ni wala yow da wax àdduna di la déglu parce que dañ laa ni 200 pour cent bi ñu ngi ànd ànd bu rafet di def nii nga ni dama koy tas ndax dëgërul àdduna yëpp di la déglu. oh non ñu laaj ma déglu rek ngeen bu ma dëgg image yi. Modou Mbaye ci cadre lamb ci cadre maanaam ci cadre Modou Mbaye ci cadre lamb pour ay dama koy dama koy tas. dama ko tas bi ma koy tas. man xaw ma ko ah, waxal. waaw dama dama expliquer dama expliquer pour ñu comprendre comme dégg ma dama koy tas maanaam. dañuy indi ku ñuy ngemb indi ko dama koy dama koy wàccee après ñooñu ñëw. ponkal ah. yi ñoo tax may wax. mais pas moom. waaw mais loolu mën ay pas ay di jaxasale seen biir. nga koo di ko yóbbu. feneen gis nga gis nga loolu gars yi baal nañ la ko cadre lamb laay yow loolu da nga ko a jël bu ko waxee dama la doon dimbali rek di la retardé waat waaye bul toog di ma jaxase nit yi man bul toog di ma jaxase nit yi xale bu ndaw nga macha allah da yor sa kattan ma yor sama kàttan bu bés ba nañ ko jëflante mu saf mu neex dañ def yëfu góor. léegi yow bi nga demee bi nga demee France bi nga demee France. waaw loo fa liggéey. Modou Mbaye lépp loo xam ne athlète da koy yor pour dem guerre ji indi naa ko. yaa ngi soog Belgique laa demoon après dans sama combat yu bëri fi laa ko pare bi rek laa soo génn dem. bi nga demee foofu doole nga fa doon wut. Modou Mbaye bu la 19 dina xam la laa fa doon def. Modou Mbaye. Hmm? làmb du ay wax kase. kii na bàyyi politique bi dañ ko wax dëgg. yaa ngi ko a préparé baa dem voyage sox. non non man moom dama demoon commerce. da nga demoon. defi commerce. fi nga demoon. wuy ma jàllaabe waxu mu jox la ci waay ak maraakis yi. daw ma woon pour entraîner dama demoon pour defi commerce. gis nga kii wax ji muy wax yëpp maanaam da ko jarul. ndax tey bu doon wax. moom wax jar na ko dañ ñoo fay xaalis da ngay wax ma wax boo ay wax damay noppi damay. déglu non da ngay wax ma wax dañ ñoo fay xaalis. fii dañ ñoo fi toog pour ñu wax ba pare bëre. mais pourtant man noppi de maa ngi. wax mais da nga ngay déglu looy ay wax wax dama fi dama fi dama laaj foo entraîné ne jeeg foo demoon ma ne teg nga wax li nga wax damaa liggéey woon indi doole nangam ak nangam man ngay bëre wax man ngay bëre laa wax da wax. waaw ah, garaaw waxal c'est normal foog nga wax waxal déet baam baal la nga yegg xam <laughs> xam nga problème bi lan la. Hmm. mooy kii dafa bëgg ñuy teesante man ak moom. waaw man du ma teesante ak yow. te dama ni kii ba muy nekk xale. Hmm. ma nekk xale. ñu bokk benn koñ. ba màggandoo. yabuma ba nuñ toll nii. mais yow man maa ngi mu yow fréquenté kii maam nu ñu bokkee benn koñ. mu jox ma cër. da ngeen a koñ. mu jox ma cër. yabuma. mooy dugg foo xam ne ñemewu fa dugg may fréquenté ñoo xam ne bu fa duggee day daw yabu ma ba heure bii kii du ma yab te kii wax ju bari ji nii muy wax nii fii la koy wax ci plateau bi eh. mais kii bu ar arbitre tëjee barrière yi maag moom kese ñu taxaw sooxu nee na mooy seen seefu gang yeen non non dafal nank Modou Mbaye kii man interset laa juddoo fa laa yaroo waaw man ku ma xam interset nga ma xamee waaw parce que di la nuy bu baax di nuyu waa parcelle bu baax a baax sooxu nekkul woon seen man maam moom jë bokkuñu ay jëmukaay man dama je suis un enfant bien éduqué. Hmm. man man ay affaire carte xaaj yooyu man yooyu xaw ma ko. comprendre nga ay dem ci pari foot ak ay yooyu yaa yarewuñu ma noonu quoi nekkul damay wax pour ko mais damay wax loo xam ne loolu lañ ma loolu lañ ma éduqué man loolu laa xam. jàngi ba ma demee ba xam ne sama jàng mënatul fii après ma dem nekk ci benn domaine mais pas ay domaine yooyu noonu. lu bokkoo leen woon koñ. ñoo bokk bokkuñu woon koñ sax mais koñ fi mu dëkkee quartier fi mu moom ba mu fa dëkkee lu mu fa dëkk sax yàggul. peut-être wala seen waa kër ñëw dëkk fa lu yàgg après moom mu soog ñëw mais maam moom bokkuñu jëmukaay. combat bi yàgg naa taxaw. dañ soog dañ koy soog a. Modou Mbaye rek mais ma maa ngi nuyu ñu ma àndal baax ku ci mel ni Moussa Dioum 2 di ko ñaanal yàlla na ko yàlla may combat xam nga ak Naar Fall ak sëñ Saliou ñoom Mara ñoom Mandaw Serigne Marème policier bi ñoom Père Bolle Modou Jox ak Baba ak Alioune Diom chaque ñoom lay àndal dem géej. maa leen nuyu baax a baax du nuyu sama waa écurie jërëjëf waa jàmbaar ak sama coach waaw mais ñu yegg après di nga leen nuyu. jërëjëf Tapha Leer ak Sa Thiès ana day gaaw te neex. eh booy jël leen yi jël leen micro yi ngeen nuyoo ku gën a wóolu boppam <laughs> sant yàlla juri si yonte waaw ñu ngi nuyu ñu fi yëpp di nuyu ñi ma àndal ku mel ni. booy eh génnal ni tuuti booy taxawal non bul avancé taxawal la yëkkati sa micro ci kaw. di ma jóge waa parcelle 1 bu 26 di eh, ñëpp daal. yëkkatil micro bi ci kaw booy waxal nuyoo. auzu bilaahi mina sheytaani rajiim. yaa bu ñu sant yàlla julli si yonent bi gërëm suñu ñaari waajur di gërëm ñi fi teew ñëpp waa di ñaanal suma papa fu mu tëdd yal na yàlla suñu borom xaare aljana di ñaanal suma yaay di wax ni ñu ngi jot ñaani bu baax a baax a baax di nuyu waa plateau bi yëpp di nuyu grand champion yi toog di wax ni vraiment exemplaire lañu waaw te wax dëgg yàlla li ñu wane rafet na mm-hmm. kon ñun booy nañu gëm roy si grand frère yi quoi waaw di wax ni ñu ngi kontaan si ñëpp loo tawa xam naa ko xamu mbër nii rek. tuddee na boppam ku ñàng de dafa leer. yàlla boo ne man mi tuddee sama bopp Sa Thiès di yeewoo ci biir këram. tafa doo wax. kii moom xam-xam mbër ak yooyu yëpp mooy kii moom suur bi moom nu mu def daanu. yëkkati sa micro ci kaw nga wax suur bi nu mu def daanu. Sa Thiès wuy. waaw waaw waaw signature la moom dañuy wax mais boo moo xoolee bu baax xam ni combat bi caaxaanewu ma ko. waalo laa jógee fi ma jógee dafa sore. gaay laa dëkkee gaay fi ma jógee dafa sore. ma ñëw damaa xees fekk. mais bi mu liggéey mu gis xam kafu ma ci réew mi. tel micro bi tel micro bi paa nga nga naan. non man may xale bu ndaw nga naan paa. góor gi Jibi Jaañ. non ko kenn da li mu def ci làmb amaanam génération kenn defu ko. Euh, wax ma léegi ba léegi ngi tege. maa ngi yow la l'essentiel daal loolu yëpp soriwul man ak yow la le 19 incha allah rabbi dañuy jëflante de en tout cas suuf moom foo taxaw mu fekk la fa moom. non doo da nga bàyyi woon làmb loo da ngay daal kan ma bàyyi làmb. man daa ma a bàyyi làmb. maa ngi di nga xam dinaa la faj. loo def daanu yow lu leer nañ laa la wax. ba ñaari protégé doo gis dara. yow doo gis dara boo déggee benn suuf doo gis dara. foo taxaw naa la fekk naa la eh, duma naa doo gis dara. booy Mourou 5 tour na de. 10 yokkal yokkal parce que grand ngi dem 10 gaawal. waaw ñu ngi woo waa Nouadhibou sama grand frère ñoom Babsa Umaro. jaal ku yool de. nuyu waa Waalo yëpp rawatina ak suma dëkk gaay di woo waa Njaareem waa Aylumaan waa Boqol waa Richard Toll waa Rosso bàyyiwuma kenn képp kuy waalo waalo maa ngi lay woo si bis di gërëm suma tooma Sa Thiès dëgg yàlla otoom la ma jox moom la mu indee. yaa. moom mu yor ci moom laa nekk lépp lu nekk ci man tey moo ko def. maa ngi koy gërëm suma papa la suma lépp la di ko woo ci bis bi di woo Balla Gaye 2 di woo Khadija suma yaay gis naa taxawaay bi di nuy waa kër gi yëpp waa Golf Sud bàyyi ma kenn. eh booy wooteel. waaw maa ngi woo waa Kombelaan ñëpp di woo waa Diourbel mu dafa leer calme nga trop. di woo waa Parcelles calme mi nekkul ah. saa di bu baax a a baax di waa Kombelaan di woo daal. ñu war a jàppale si combat bi di woo mu jàpp si combat bi ni mu si jàpp woon te bu combat bi passé père ko jënd. maa ngi père ñoo tëgg laa ma jël jëndaluñ kenn billet. waaw lan mooy tëgg laa ma jël man maa ngi woo père ba di ma si billet yi bu baax a baax a baax ah. woo sama nijaay Mor Fall ngaa ko ne maa bu baax a baax si combat di woo di woo Assis Assis moom day jàpp si combat bu baax a baax a baax maa ngi koy woo. jaajëf woo ñëpp daal. waaw maa ngi woo. politicien Ah, ah, ñu dem ci combat bi si topp Arda Junior moom moo koy bëree moom ak daabu daabu ndaw taas ba taas après fu jëm rab taas Moustapha Diallo tooñ na yow mi ma taxal micro bi tax ma fii eh. eh booy jëlal micro bee jëlal micro bee. aca bisimilah ku gën a wóolu boppam la nuyoo. alhamdulilah bisimilah jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba. ginnaaw ma sant yàlla juru si yoon sant suñu ñaari waajur sant ñu fi teew ñoom. di yi mu àndal bu baax a baax. yow yaay kan. Ardo Signor la xale bu ndaw daaw ndaw waaw ay arto ba sant yàlla bi sant suñu ñaari waajur sa mbax <laughs> bu ndaw sant sama yaay bu baax a baax a baax waaw du ko ñaanal yàlla mu wér ba xaw a tawat ko waaw waaw billaahi di ko ñaan yàlla ñaanal amiin amiin sant sama papa bu baax a baax a baax waaw di seen sama gars yi maanaam bu baax ku si mel ne Omar Dame Seex Omar Taalibé sama mag danger numéro di seen sama yaay sama yaay Rabi Mbodj bu baax a baax a baax di seen Abdou bu baax ñoom Bamba ñëpp maa ngi sant di Nguy Lo bu baax. Eh, booy gaaw si nuyoo bi damay laaj Ardo ma kenn. Eh, Ardo waaw. biir yére bi lan la yow. ah tiit moo tax waxal lii lan la. bari di sant. bilaay xamoo ko loolu dara kay def ko seen taalibe mag bi bilaay imsaal maa ngi seen bu baax di ko woo si a ko foofu fi mu jege di sant waa parcelle di woo na waa parcelle unité zéro ba unité vingt six di leen bu baax a baax unité zéro waaw am na parcelle di bëggee woo waa Corso di leen nee nag wuy kii sëñ bi woote bi nag ma jaale sama benn papa sama benn gaan bu génn àdduna tey Malick maa ngi ko jàllale sama mbokk yëpp di ko jëlee waa Casamance bu baax a baax. yàlla ko yàlla xaree aljana ak sama benn maam bu baax bu génn àdduna dimanche nga waxoon kër gi yëpp waaw di ko jàllale sama bu baax a baax a baax. Ardo xam nga kii yàlla nga waxal nga may jaay champion nii dul bi daga baana. mais nga mi fo. di woo sama mbokku bambara bu baax a baax Mali di bëgg eh, eh, gaa yëpp. Ardo yow eh. kii dama bëgg ngeen déglu ma. waaw ci temps la nii liggéey xam nga ki <laughs> gis de. yaa ngi koy soog gis. daa xam nga Ardo. xaw ma ko de. yéen ñaar seen bis lan ngeen ci nar. ki ah. arbitre la jën suñ diggante rek. kun mënu mënoom ren rocc butam. Ardo wuy lool. Modou Mbaye. dañuy sant ñëpp di bëggee ñëpp le 19 incha allah su xeexee cinq bu bëree mu bëree loo ko caa. mun ma gi daa neex ki mu toog a neex mun ma génn di wax nii wala ñu la taxal moo tax nga jëm a garaaw garaaw. gan gan bu arbitre bi nee pii. sa waay déggoo ma jël pour yow da ngaa jël lu yomb. sa waay bu arbitre bi sifflé génn suñu diggante nga xam ne ñun ay doomu parcelle lañu. laam dañ ko foowee. xam fa laa juddoo. déggoo yëmbal eh, laa juddoo. li tëntiwuma foo juddoo foofu ma juddoo tapet amu fa. si la bi laa dëkk man bëggee waa yëmbal yëmbal mën naa la fa génne trois quarts. génne loolu neex yaa maa leen bëggee bu baax a baax da ngay xàññu. sa waay sa ñoom yëmbal tojoo fa ngay xàññu. waaw da nga may ñu wax ñun. defal nànk rek waxal boo wax. Euh, comment bi dina gaaw. wa nga ni ma. incha allah eh Ardo. le 19 yaakatul. li tubaab yi dina am tout près n'est pas loin. <laughs> waay ndaw Samba. français ne soo soreetul. loo dégg moo gën. Ah, man damaa jàng de. Serigne Touba. jaguma man. wari mbay ki ko san mako bambare me bamana k'i wele. pa. wa a dɔ wɔtɛl wa wɔtɛl. bamanan bɛɛ an mago bɛ duwawu la an ye kunba di bëggee ñëpp xam nga di la nag seen combat di woo bambare yëpp. di woo waa Saalum waa Saalum maa ngi waa Xay waa Kër Ngandar waa Kër Ñangaan waa Ngandar. Omar Baye Fall di ko woo ci combat bu baax a baax di woo gars yëpp ñi may àndal nu ko man dafa bàyyi lépp mbari Serigne Touba ànd ak man guddi gi xam nga mooy loolu. ñang am nga combat nag mais ma la ci woo la ci woowaat bu baax a baax di woo Giro Seras di woo Ardo sama tooma di woo bébé Issa bu baax a baax waa Xorso nag li ngeen ma wax gisagu ma ko quoi balaa ko tige bi. gisagu ma ko. góob dafa doy. waaw ah, da ngeen war a ñëw. ci eh, ab eh, si daa woote. di woo ñëpp. waaw maa ngi woo sama mbokk yi li si mel ni Abdou Khadir Diop ñu mooy suñu Macky Sall mooy suñu ñu moom lañu am man moom laa am man waaw di woo monsieur le maire bu baax a baax di grand grand Moussa Samb di woo Nguy Lo bu baax Serigne Tola la waaw di woo maa ngi koy woo am na lu ma dig Maxa am na loo ma dig. eh sëñ bi sa place nga jox ma ko. ma dig doo bëgg jox ma ko. nga wax ma leer di woo sama grand Poulo bu baax a baax a baax waaw di woo sama mbokk bàyyi nu génn bu baax baax a baax ñu ñaamaloo méngu xanaa ku laaxiñ kem. yigi combat mais arrosi no taxawal benn place sëñ bi bindoo saaro saari ko ñumbe jilaage bajuwaal kasankil ko muur toobor ñëpp maa leen woo di woo sama mbokk joolaa yi maa leen woo bu baax a baax a baax ma mënee gan ñoom laa dëkkal maa leen woo bu baax di woo sama mbokk soose ñëpp maa woo noonu la demee <laughs> ñu ngi koy béggee bu baax a baax a baax a baax kon daan nañ ci moom ñi ngi jaajëfal arro arro yaa ngi wallaxu rek di ah mu demee noonu caatu sanzala moom moo ci top mbokk yi moom ak saxal de caatu sanzala saxal mbër adversaire bi ñëwul. Ah, laaj naa la ko. bisimilah nuyool. waaw ah, onze bi la bisimilah la waaju yàlla. waaw oh, ci digg micro bi. jër Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul gàcce ngaalaamaa Cheikh Ahmadou Kara Mbacke Noreyni gannaaw bañ sant yàlla julli si yonent bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur. Mhm. may ñaanal yàlla sam fa mu tëdd gënal ko fa mu jugee. amiin. sooku nag dafa dawloo sama yaram quoi. combat bii nii faraluma kenn sama bopp laa lijjanti mais daa wax wax ju am solo daa mm. tudd ku to ku sori si man. muy mm. Papa Yada. Mm-hmm. ma koy ñaanal borom bi defal ko tawféex ak taysiir fa mu nekk. waaw sama adversaire nag comme te ñëwul aw ma lu ma koy wax xëy na damay sant gërëm ñu ma àndal. ayca mm-hmm. waaw maa ngi sant di gërëm Saliou Niass. ak Ablaye. Mm-hmm. ak Bekaay Meng. di sant waa fa ma jógee Senzala Grand Yoff bépp mafia bu fa dëkk maa leen di sant di leen gërëm. Mm. di woo ñëpp ci làmb ji. Mm. ku si mel ne maam Bayaan maa ngi koy woo. di woo maam Lo di woo sama waa gàlle ñëpp bàyyi ma kenn di gërëm sama yaay booy bu baax di ko ñaanal gudd fan ak wér gu jaram ba mu fekkee sama njëriñ. sama adversaire ñëwul nag du ma mun mënee wax maa ngi tuub jégalu bu wér. macha allah am na solo ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Thiatou Sanzala merci. Niang baalo Guy Ma Guy Manko. kii sama xarit la waaw moo ñoo ngi kii sama xarit la maa ngi lay siyaar képp ku fi teew di leen siyaar di leen ñaanal jàmm maa ngi julli si yàlla xam nga sant yonent bi xam nga <laughs> ngi sant yàlla julli si yonent bi ma sant julli si yonent bi bi di sant sama ñaari waajur macha allah bu baax a baax a baax ah, micro di ñaanal sama yaay yàlla yàggal ko fi mhm. xam di ñaanal waa peese mhm. chambre une ba 47. <laughs> yokk nañ si yeneen chambre léegi ay 40 53. waay na fa yam waaye doy na ah. 53 di ñaanal nag chef de cour bi chambre yi nga yemale ko foofu. waaw doy na waaye xam nga di ko wax tamit directeur bi xam nga 47 chambre la woon yokkaat ngeen si yeneen ba léegi doon na ay 50 nangam di ñaan yàlla na fa chambre yi yam yàlla néegi vide. si barke Seydina Mohamed xam nga ndax foofu noonu dafa metti gars yi nan ma ñaax ba may ñëw. woo ma téléphone xam nga tey jënd seen carte crédit xam nga wooma si xam nga kon tey su ma taxawee fii il ma tudd leen ñaanal leen yàlla oyofal xam nga yan bi seen kaw. ndax metti na ak tàngaay bii nii ñuy dugg si. Mhm. du wax tamit restaurateur koso bi mayal gars yi ay ventilo. xam nga li ngi lancé message bu am solo. mayal gars yi ay ventilo mi message bu am solo. déglu leen ko s'il vous plaît tàngaay bi dafa metti xam nga waaw. Niang Ballo baal ma tuuti ñang baal li nga wax dafa am solo parce que en ce moment dañoo toll ci période boo xamante ne nii képp koo xam yaa ngi œuvre ci social rawatina ñi nga xam ñi ngi jëflante ak kaso yi ñoom période bi ñi ngi dem ci prison yi di leen offrir ay ventilo di leen offrir ay matelas loolu am solo la parce que période bi ñu toll période tàngaay la yére bu oyof bu waay mën a am boo ko mënee offrir les prisonniers ils en ont besoin ci période bi ñu toll macha allah loolu am na solo mais yëkkati sa micro combat bi le 19 lay doon. waaw combat bi le 19 la incha allah yëkkatil micro bi sama adversaire ñëwul. lu ko mm-hmm. téye yàlla na doon jàmm yàlla na am jàmm xam ba lu ko téye mu bañ koo téye bis ba waa bis ba mu teew si kàttanu yàlla moo. waaw. damay ñaanal gaa yëpp jàmm di ñaanal ñaari champion yi toog di leen ñaanal jàmm. Mm-hmm. xam nga di ñaanal ñëpp bisu làmb ji képp ku si bëre nga am jàmm bu baax a baax a baax. ndax bis bii nii dafa nekk bis boo xamante ni képp ku si daan am na feneen fu mu la mën a yóbbu. Mm-hmm. di ñaan boo yëpp. ñu góor góorgóorlu yàlla may nu si ndam. Mm-hmm. xam nga. Mm-hmm. daam leneen moo lu may wax ko muy lan muy kutaal. kutaal waaw. dafa sori. yëkkatil micro bi li nga wax dafa am solo. kutaal sori. waaw te seen jangaa bi dafa am xeer mu barki Alaaji Fallou Mbacké sama adversaire ñëwul tey du ma wax si laa ma. c'est vrai mais. Mm-hmm. maa ngi ñaanal lu ko téye mooy loolu noonu sama adversaire ñëwul kutaal dafa sori. barki démb woo ma téléphone. seen jangaa bi day am xeer barki Seydina Mohamed day am xeer. damm na fa sama benn bëñu gaañ barke Serigne Touba Mbacke lu may wax ay dëgg la ay fu leer naa ñu laa ko teg quoi xam naa lu may wax. lu leer xam nga làmb moo nu fi indi quoi si lan war a wax. dëgg la mais nu mu demee la gars yi ba may ñëw lan ma woo tey fu nekk lan ma woo waa Campenal di ñaan Modou moto yàlla oyofal ko yan bi lu ko dese bëreetul mbaalo xam nga xaamidu xam nga man la sama waa ji di ñaanal xam nguude siise yàgg na fa torop xam nga ñu ko tëj vingt ans ba pare tëjaat ko dix ans di ko ñaanal. yàlla na ñibbisi si jàmm quoi xam nga moo mooy loolu quoi. taw féex ak tey si kontaan naa ci yow bu baax a baax a baax kenn nag maa ngi woo suñu monsieur le maire mu jàppale ma si combat bi ma bàyyi dun paate di ko woo mu jàppale ma jëndal ma ay bolok ndax daa am lu topp sama ginnaaw te ñooy ñëpp mënuma leen dugal esaat maa ngi woo képp ku ma mën a jëndal ay bolok rek. boo ñëw esaat si kàttanu yàlla. jaajëf kontaan nañ ci yow. jo Pa Modou Diop Fall per bu xar daa jël xaalisam mu ne ko tey laa lay wan li tax ñu góor a Cissé ak Aliou yaa nekk jeel loolu <laughs> amatul Ibo Mambala demal waaw waaw nuyool waaw auzu billah bismillah inna wali yàlla di wax jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfati Serigne Touba jërëjëfati si Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di wax jaaraama maam sa Ibrahima Fall la jaraw laqati Cheikh Babacar Mbacke si diixul mu kabaroo oh gàcce ngaalaamaa Cheikh Ahmedou Mbacke mu kabaroo borom Daaru Salaam ak Gaawaan sama yaakaar tey ak ëllëg dañoo nekk ci wàccaayu màggal màgg Salaam waaw mu tombé le 19 juin Karbala nuyu naa la sama bis la mm. moo bu loolu weesoo ma nuyu waa Kër Mbay Fall ku luxum avant tout nga xam rek man yaakaaru Kër Mbay Fall laa te waa Kër Mbay Fall lañ maa yaakaar dëgg la di nuyu waa Kër Mbay Fall ma limee nag damay juum mm-hmm. bëggee sama doomu àndal booy ñaa di di boobu léegi seetaanuma mm. am nga di jaale tamit sama waa gàlle sama mag bu jigéen faa coor teel a woon 40 jours mi di ko ñaanal xam nga yàlla na suuf si oyof ci kaw njaboot gi yàlla suñu borom teg ci loxo def ci barket yu am doole barke maam Seera Fall di nuyu xam nga waa Kër Mbaye Fall ku loxub nag adversaire bi ñëwul sa waay mooy loolu daa am lu ma ko waxoon keroog yaa ko maam Balla le 19 juin amul lenn looy ëppalee Ibou ci <laughs> looy wax ni. xëy na looloo ko tee ñëw xëy na looloo ko tiital. da da da maam Balla daa ñaaw. laa <laughs> romb na ko Modou man man yaakaaru làmb laa doomu ñoo yor laa mais bu loolu weesoo damay nuyu sama grand sox maa ngi tëb sa xam nga nuyuwuma ko boobu ba léegi mooy loolu te sama grand la mooy loolu di nuyu Franc man moom xamante nañ quoi. Mm-hmm. mooy loolu mais Modou Mbaye loo ci mën a dégg lu nekk man yaakaaru làmb laa. waaw te yaakaaru ay dëkk laa tamit. Mm-hmm. ay dëkk laa la wax de ay dëkk. Mm-hmm. Idi Saloum dañ maa yaakaar. su commencé ñoo jot ba fayaa ko dañ ma yaakaar xam nga di leen nuyu waa ñoo yor waa jonwaar falya munde si wo jogaan baasul baasaar ro mar faafaxo mar loj mar sulu yaa ngi dégg mm. ñoo yor ba fayaa ko daal bàyyi ma fenn suma ma limee damay juum mm. noonu la fa demee nag nice adversaire bi ñëwul xam naa dama lay bàyyi rek. non da may bàyyi ma wax sama wàll waxaale wàllam. comme non non wooteel rek yow léegi wooteel rek jàppale. ba ma jox leen liste de. renforcement pour mbër <laughs> war ngeen ma mi ngi borom États-Unis tonton Pape tonton Ousmane Sarr tonton Anna. Tata Anna famille mère Emma Sarr. mère Emma famille maam Mariam Sarr. Famara borom Sikori. Pa Fay Famara moo ah. Bokar Ndiaye am Fay transitaire Thier Ndiaye transitaire ba APR. Mm. député Chérif Théodore Monteil. sama papa waaw. papa Ndiaye Malick Abdou Karim Sall waa diaspora bi Fallou Sarr borom États-Unis waaw di profité di nuyu sama mbokku séeréer eh, yi na. waaw man nuyu sama dama leen woo waaw fo wole séeréer mais sim naa nun joka nun a njal ak kon nun fa simangol nun ka tuna ñojoor boo faya ko wasimol leng xoya nun na combat fane inchallah le 19 in fa maam Balla te gar weerañ na dada felangaw yàlla yi inchallah foofu comme que maam Balla ñëwul sama combat moo ci <laughs> man bëgg naa mbër mu dégg de barki waaye am na ñoo xamante da leen di tëggal jëm fee ñu jëm nee croisé yoon yi ma am na ñu ma mere sama combat moo stop mbokk yi combat bi di ñëw mooy sama drapeau Ibu Afia ak caatu puyol bi yóbbu leen ñaari ndaan nuyoo leen nuyoo leen aja bisimilah iwaafiya eh, Aliou bisimilah bisimilah ina waanu yàlla jërëjëf Sëriñ Tuuba ginnaaw bi ñu sant yàlla julli seen naameer sant suñu ñaari waajur ñooy nuyu ñu fi teew ñëpp di nuyu bi fi teew ñëpp maa ngi bëgg Aziz Mbaye ma àndal di siyaar ñëpp yaat kon mu nga waxee rek ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi di sama ñaari waajur bu baax ñaanal sama papa fu mu tëdd yàlla ko gën a fu mu jógee. amiin ñaanal sama waajur bu jigéen yàlla na guddal fanam mu fekkee sama njëriñ bu baax a baax a baax sama lépp moom laa am. Mm. sant nag waa garaam yi ñëpp mafia bi kenn di bëggee na sama mafia bi may xaar na mënuñu dugg wax maa bu baax a baax. Mm. waaw. waaye combat bi moo jar bët bu néew yi. Bamba. lu la ko jox. contact bu métti rek. Ibu. waa ji contact na ba bët bi nee. contact gu ñu dañuy fo. ah. dañuy fo contact gu ñu. yéen contact gu leen. caatu ku yollu di fo. méttiwul loolu lu dossier. xam nga ko. bu baax. Hmm? loo may wax si moom. non ndaanaan la champion la sama waay la xamante nañ. ah xamante ngeen. waaw ah, xamante nañ. caatu foo leen xamante. Hmm? foo leen xamante. naa est nu mu ko waxee noonu la demee rek. foo leen xamante da ngeen mus a daje. ay xamante. <laughs> nu mu ko waxee noonu la demee rek. <laughs> ok léegi combat bi. combat bi lay demee Ibou. Caatu Puyol yéen ñaar wax leen. da ngeen a rusante wala da ngeen ragalante. du yomb non du question de ragalante wan combat bi du yomb kon nu mu ko waxee noonu la koy jëfee rek bu bisu làmb ja rek. yaay dem. si kàttanu yàlla. kii ñeme nga ko song yow. non man xaw ma taxaw man nee naa ba arbitre sifflé ba desul ne lu dul ñaari waaw dernière seconde ba ma xëppoo ko yaa ma gën a xam be. waaw. ba lagg ba sànnee ko ba fëlaale non boobu beneen affaire la. Ibu. waaw loolu mu wax dama ko ci waaw bégee bu baax ndax ngénteel muus ku fa ndaw dal dina sa jaan wàcc la dañuy daje moom du ma ko xaar mos nga ma gis ma ma xaar nit. Thiatou du ma la xaar ci dara. buñ dajee nag ma daan la jël bu gaaw. baax na incha allah ba nga toog sa dara sa gémmiñ naan li nu mu demee nii. munoo ma yëngal loolu ngay def noonu du ma daan. parce que boo taxee ma daan la jël bu gaaw. li nga. boo ñëwee laa la ma roofandoo yow daan la jël bu gaaw. jël bi extraordinaire laa lay daan boo mosut a foogee sa àdduna. Ibu lu garaaw laa lay tegal nii boo taxee laa dama lay fekk si foo munta ne. incha allah rabi si kàttanum naa ak yërmandeem incha allah nag laa lay wax nii. kii ñaan ak ki ñu may la. ak ki ko faam bu ñu benn. yow bëgguma nga maa ko fa am man ñaanu ma la tuus boo amee la may may nga denc ko man damay ñëw. waaye boo ñëwee damay dem rek li ma am dama koy jël si. boo ñëwee boobu lay gën a neex. caatu yow ngaa ko ngaa ko xam nga li ma lay wax bu baax. waaw kon yaay foofu ba léegi. a leen micro yi. waaw baax na baax na maa lay xaar. waaw. combat nante ngaaga la. man ngaaga bokk sama yoonu lamb ndax tey mu demee nii. fi nga jaar dafa sori yoon bi dafa sori. barke Bamba soriwul. mën nga xool yoon bu gën a jege. non borom Touba soriwul. baar bi sifle damaa bokk sama yoonu lamb. baar bi sifle. damay jàll jàll. maa lay xaar yaa may téere gan baal. waaw waaw yéen ñaar incha allah rabbi foo leen xamante. seen règlement de compte bi fan la jógee. règlement de compte bi fa la jógee yéen ñaar da ngeen a. Ah, da a bokk fenn ñu def kenn ki lenn loo xamante keneen ki da ko ñeme. la la non non dañoo defoon ci sama maara la. te moom moo ko bëgg a moom xamante woo leen si maara. non noonu la defee. du benn maara. damay wax fi ngeen xamante ne. non. <laughs> aja woote leen woote leen. kon ni ko ñang waxee. waaw. di siyaar ba. waaw. chambre une ba deux ba trois ba quarante six ba quarante ah. sept waaw siyaar bu baax a baax a baax su mel ni sama benn gannaaw bu nekk foofu Baye Mor Ñang yal na ko fay yàlla gaawal génnee defal ko tam booy yëpp su mel ni ay ñoom Babacar Aziz yenn gars yi bëri ñoo ngi foofu ay ñoom Ron ay ñoom Alaat Sidi di leen ñaanal xam rek yàlla gaaw leen teggal nattu bi ñoom ñëpp ñu kamoon si waat ba campénal su mel tam sama benn gannaaw bu nekk foofu tamit cale yal na ko yàlla moom tamit gars yi fa nekk yëpp tu bëggee nag Grand bi yëpp ba Arafat. yaa tudd sama xarit de Cale. ba Grand Yoff ba Arafat xaar yàlla bi. di bëgg tam waa Grand Yoff bu baax di woo eh, ñëpp. ñaata xam nga day bëri ma lim. Ah. man sama bés nga ñëw taxaw laa yàlla. dëgg la. nag yàlla na yàlla gën a xeeb baax na acca Ibu ñaanal. waaw gars yi di leen taxaw bu baax a baax waaw lu ci mel ni Sambour in ba 45 ay bëggee ñëpp ñaanal ñëpp jàmm ku ci mel ni xam nga ay Sey Jibi ay Boy Fallou Isi Maguette Ndoye ay Tidiane xam nga boo yëpp maa ngi bëggee ñëpp waa Campenal Cap Manuel ñaanal ñëpp jàmm waaw di woo nag waa Mirna yëpp ñang <laughs> ay woo yëpp waa Colobane Fass Gueule Tapée waa Plateau jamono raay ba ñëpp jàpp ci waa yaraa mer Fadou combat bi sa combat maa lay woo bu baax nga jàpp ci di woo ku ci mel ni xam nga Cheikh Ba sama père waaw di woo Thierno Ndiaye Paco Jackson Bamba Fall maa lay woo prési maa lay woo bu baax ngeen jàpp ci maa ngi woo ñëpp di saa du ñu wàlla sama yaay mère Ngone waaw Riven Seng su amee bis da ciy bari sëñ Bamba ay ñoom waaw kii ñu kii waay jàppale ma Azim Mbaye jàppale ma waay <laughs> yónni ay ñoom yónni xam nga maay bëggee ñëpp waaw di woo ñëpp incha allah le 19. jaajëf Aja Alioune Seck ñu dem macha allah. waaw mënumaa jóg. waaw eh booy kaay jël junni bi maa ko may Alioune Seck mënumaa jóg. am am dañ maa tax jaajëf mbokk yaakaar naa ne bisu la 19 jaay boppam ba pare ndax xale yii rekk bu ñu leen indi woon ci arène bi yaakaar naa ni lu neex dina fa am ay Ibu Afia ak Caatu Puyol bi fi ñu xamante ne nanguwuñ koo wax mais fi ñu xamante ne ñu ñu ñaar ak man ak ñang baalo xam nañ ko kot la duñ ko wax ñëpp <laughs> macha allah mbokk yi dañuy del ci grand combat bi mais grand combat bi damay jox Fadam deux micro bi joxal ma ko micro bi Fadam deux balaa ma lay jox micro bi Pa Modou élément bi baax na ñu dem élément ñëwaat. Franc soq Franc. Modou Mbaye soq Franc du làmb arbitre bi dafa bàyyi soq. Eh, wax sa xalaat de. ah arrêté jàll soq wax dong ci làmb ji wax. ah arrêté la ba làmb ci jàll Modou Mbaye. neex rek. soq day wàcce Franc. Franc du làmb Modou Mbaye. coow dong bari coow li rek. Eh, soo ko eh, franc laa la du ñaar dërëm day diis diis. ma ne ma ñëw bokk Colobane. bokk maa la wax fii nii soo laa la bu arbitre sifflé mu dox si kaw franc. ci làmb ji wax bu arbitre du. Europe eh, Colobane waxal waay. sook franc loo ci franc. sook franc man maa ngi si ginnaaw sook. combat sook ak franc. ku si jéeg sa morom lekkal. ku ñooñu ak franc loo ci maa ngi ci sox yaa ngi ci jàmm yaa maa ngi koy seetaan ak franc loo ci wax. ah daan. waaw. par jàppaleel ma. fii mbër bi neexul leen dañ koy bëgg a rey. cinq cinq cinq défaites cinq combats cinq défaites. neex ku mooy ñeey ñeey. moo tax booy bi moo ko daan cinq jeex na léegi maay sa sëriñ eh, kenn mënu kaa jàppale kenn kenn mënu kaa jàppale. Modou Mbaye arrière yi baaxul arrière yi damaa mais damaa ñëw damaa ñëw ngir ñu waxtaan ci làmb. soq ak Franc taxaw na. Franc day daan soq. foo da ngay baax leen. Franc moo ko mën parce que moom moom moo mën day mbapat. wéy Franc day mbapat Sokh day mbapat. mais Franc xeex. Sokh day façon xeex duñ benn. façon xeex duñ benn. yaa ngi seetaan làmb. waax Sokh Franc loo wax. Sokh Franc combat la. combat bu koy jox favori. Sokh Franc. non pour cinquante cinquante la. Ah. waaw. ak Franc koy supporté. voilà Sokh ak Franc. man maa ngi ci Sokh. ndax. loo gis ci sox ak franco. ko maa ngi sox. waaw fii ñu ay waa sox. waaw mooy rek. mais bàyyi franc tax. sox ah, sox dafa bi nekkul loo xam ne da koy ñëw fi di wax wala nii wala man. man la koy wax ah. macha allah waaw nañu bàyyi bu ñu xool ko am ko ëpp ah. xam nga lu muy représenté ci muy représenté. ma waaxu ba ci benn bunt jàkkaarloog bunt bi ñu ne ma bunt bii nga war a ibbi pour dal ci ay milliards ci biir bunt bi. waaw illaa du ko ibbi dama koy daaj. ah. war bi sifflé ma dox sa kaw jàpp la duma la daan. boo dawee yow di ma song pour ñu bëri dama lay bu mag nga génn ñu xeex 15 minutes yu wow koŋ même bu 15 minutes yu matul dimbali ma ñu xeex yooyu minutes ba ñu xam mag yow ku gën a lu métti ba pare ñu jaxasoo man ak yow ñu bëri. le 19 juin lay am ci arène national mbokk yi dégg ngeen li waa mbedd mi wax Fadam 2 soq ak Franc ñoom ñaan ñëpp bi ñuy tàmbali bëre ci sa kanam la suivre nga leen loo may wax ci seen diggante. waaw El Hadj Modou Mbaye maa ngi lay nuyu di la ñaanal jàmm bu baax. xanaa Abu Faysen moo la sañse. non tey du Abu Faysen tey jii sama benn boy moo fi génn. moo tax xaw naa ñaan Modou Lo Couture. naa laa eh, rey maa ngi bëgg a gaañ fi ma toog. man Ama man Ama Couture ñoo ma sañ. waaw Modou Lo moom a rey tey jii man Ama Balde ñàkk. waaye mais Modou mbay maa ngi nuyu réew mépp di leen ñaanal jàmm. ndax ku dul maye jàmm ñaan jàmm rek la jig. Mhm. ñu ngi nuyu suñu mag ñu nekk ci plateau bi yëpp. di waa CNG ak suñu père Thioune ak bépp amateur bu fi nekk ak benn ménagère di nuyu président Gorondo yi di nuyu axlu làmb yëpp di nuyu xale yi nga xam ne nii tey jii làmb ji la 19 wane na boppam. waaye nag Modou Mbaye balaa ma départ am na bés yi daan baax ci làmb amateur yi di ko daan bëggee am na bés yi daan taaru ci làmb amateur di ko bëggee kii yéen nekkoon ci ginnaaw di ko defar te mësta feeñ muy moru parcelle na ko làmb bàyyi xel. Mm. du tànkam yee tax de promoteur yàgg naa siggi ci làmb te ay kontam combat moo ko daan monté daan ci taxaw te kenn su ko fekkee. dëgg la yàlla na ko yàlla defal jàmm. waaye Modou mbay ñaar ñiy toog leen boole dafa bari El Hadj Modou Mbaye. lu leen boole. Ama Balde a boole. Mm. ak Modou waaw. Modou Mbaye combat bii dafa am ay combat yu ñoroon te amateur lekkuñ ko. te ci combat bii lañ ko war a mën a